ay ji nag ñuy amal journée mondiale de la télévision ginnaaw bi ko waa assemblée générale des nations unies taxawalee ci atum 1996 askan wi nag daal di nañuy wax ana naka la ñu gisee programme mu télé yu nekk fii ci Sénégal. Sénégal vraiment man li ma ciy seetaan nag lu bëri waaw franchement parce que da nga ci musique bi moo ci ëpp. information bi ñu ci soxla doo ko ci gis mbala boo ko ci gisee aussi du day ils n'ont pas joué leur rôle waaw éduquer bon ni ma la ko waxee rek man su ma amoon tey télé xale yi laay éduquer yaraat leen jàngal leen civisme daal moo ñàkk. du ne amuñu ko du ma ne tamit am nañ ko cent pour cent parce que télé yi moom ku ci nekk ak na ngay bàyyee sa waar ci ci ci ci Sénégal am na ñoo xamante ni ñi ngi defar bu baax a baax a baax a baax mais am na ñoo xamante ni moom dañuy yàq parce que su ma xalaatee benn wax bu sëñ Samba waxoon. jamono dina dox dina ñëw ba duñ dinañ toll benn jamono boo xamante ni ñiy fo. sax booy xool ñooy ëpp nationalité ci dëkk bi ñii fo ñoom ñooy ëpp alal ci dëkk bi ñii fo ñoom presque mën naa la wax ñoom ñooy poñe àdduna quoi te lool nag bu ñu demee ba toll foofu noonu xam nga ne kon Sénégal mën naa la ne kon euh, doy na waar parce que télé day wane mais day day wane image boo xamante ni xale da koy gis mag da koy gis léegi rek dañuy teg dañuy teg ni affaire boo waxee ñu ne la ku mën a seetaan seetaan ku mun mënta seetaan jappe mais loolu du wax lu mu métti métti rek bala ngaa jàllale benn émission wala benn wala benn sketch wala benn lu mu munti doon rek xool ko waay parce que xale yi ñoom ñooy doon ay mag ëllëg lu mu ci mun di nekk rek na rafet bu rafetee daal moom après lépp dina nice waaye daal naan ay à l'âge de 18 ans l'âge de 1 an 4 ans yëpp a ci yem affaire daal moom na rafet bu rafetee daal moom lépp dina baax parce que ñun Sénégal lañ nekk fépp ñëpp a fi ñëpp fi nekk te dañoo bëgg lu baax. concernant suñu télévision nationale. bon bien vrai que nag ñenn ñi ñu ngi béy seen waar bu baax di joxe information yu wér waaye ñeneen ñi tamit muy loolu man nag li ma si gën a métti nag mooy seen série yu bees yi jàngalul dara lu lu jëmee kanam si euh, xale yi Sénégal yi maanaam la jeunesse man daal suñ ko mënoon soppi jëmale ko ñuy jëmale nit ñi si kanam moo ma gënal parce que neex-neex bi daal ak utum xaalis bi daal moo si moom rek lañ si gën a gis daal. waaw buñ ko mënoon soppi jëllu cosaan tuuti comme ko ci nu mu doon def loolu daal dinañu neex lool sax. loolu mooy kàddu yi nga xam ni askan wi yëkkati nañ ko mu mel ni rek ñoom kenn ku ci nekk ak jàngat bi nga def jëmale ko ci tele yi nekk fii ci Sénégal bu ñenn ñi amee mbégte ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ñeneen ñi nag daal di nañu jàpp ni defu ñu benn yoon li ñu war a def.